Assalamualaikum warahmatullah. rahmatullah kon ñu and ak yeen ci seen nafila guddi tay inshallah allah di dëppoog al khamis fan ci wéru me atum 2019 sëriñ bi dafa wax ni guddi ñaar fukkeel ga ak juroom ku ca julli juroom ñetti raka raka bu ci ne nga jang ca fatiha Kul huwallahu ahad ñent yoon bala mo jóge famu mu doon jullee des na ko jéggal bakaram yépp te yalla du ko mbugal mukk kon ga ngok yalla nañ ko suñu borom lo te ñu def ko te def ko nim ko bëggee mu nangul ñu ko fulal ñu ko laqal ñu ko fa yaq eggul bi barakati cheikh ahmad al khadim wa salatu wa salam ala rasulillah